salla yal na dolli tedd nga xalihim ci ñoom aljalilu aji màgg ja lam tëkkun kon du nekk aruslu yonante ya jamihan boole seen umana di ñu ñu wóolu umana ah mooy cosaan li aalimil xëy bi ñel aji xam ja kumpa ëllësi ki nga xam ne fatarana bind nanu léegi xamal ne ku yàlla yónni mënta ñàkk melowoo wax dëgg ak sax ca yoonu bañ koo wàcc ak jottali luñ ko jottali loo mooy rek suñ lëlutoon noonu yàlla du leen doyloo di leen def ñu di ay ndawam ndax yàlla moom ku matul ndaw du la yónni wa yuqasu def na jàppe min hu ci loolu aydan ba tey istihaalatu fi'li jamihi nahyi jombug def mboolem ak tere laa maxaal te amul benn sikki sàkka li annahum ngir naka ñoom xad ursiloo yónneef na leen li yu'limu ngir ñu xamal li waraa ñeel mbindeef yi xawlan wax wa fi'lan ak jëf fal ta'lamu na ngeen xam maxa sukkootihim ànd ak seenuk noppi tayal samu kon dana war xadamu xilaafi amrillahi ñàkk a juróo ak ndigalul yàlla fii ku leen ci leen lu ne na xam waaw min ixtiyaarihim ngir seenuk tànn xalal xalq ci kaw mbindeef yi kama aminahum naka mu leen wóoloo woon fi sirri wax yéen ci secret wax yu xulima bopp xameef na ko ku yàlla yónni ku ne ba yable ci yow malaaka mu lay wax yu daal yetti melo yi moom faaw rek day jomb ci yow du mën a am mukk mukk te mooy fen wax lu amut ndax waxoon nañ ne ku yàlla yónni moo koy dëgëral may ko moo jisaat yu tax ñu gëm ko te moo jisaat ya mooy wecci suñu borom ne woon kooku kat maa ko yónni sama ndawa lu mu wax ci man la ko jële lu mu jëf ci man la ko jële kon asiduxu mënta ñàkk ñaareel bi nga xam nag mooy sàmm kóolte gi leen yàlla wóolu ba bañ a def dara lu araam mbaa dara lu ñu sib moom yomb naa layal ndax yàlla moo leen yónni ne roy leen ci ñoom lu ñu wax ak lu ñu jëf ni ki bam ne wa ma aataakumu rasulu faxuduhu wa ma nahaakum xanhu fantahoo loolu nag kon xam nañ ne ka yàlla yónni wax ne mooy wane saaw yoon du ko bàyyi mukk mu jàdd bay wax mbaa muy def lu araam mbaa lu ñu sib ndax day mel ne kon yàlla moo araamal wala moo sib ba noppi ne wëlbatiku di topplu loolee mu araamal mbaa loolee mu sib layu ñetteel bi muy attabliixu waxan nañ ko mooy boo layalee rek amaana bi nga weesu layal nga tabliix ndax ñàkk a jottali mu di ak nëbbu lu araam la te ne nga ab yonante du jege luñ araamal mbaa lu ñu sib te it bu yàlla xamee ni kii bu ko yónnee du jottali dama koy yónni kon du ko sax far yónni di tax mu ne nag maxa sukkootihim tayal sa mu xadam xilaafi amrillahi fi kulli naxam tey wane ne ku yàlla yónni moom du sañ a dënniirlu lum gis te muy lu yàlla aaye nam war a jottalee lañ ko jottali loo bokk na ci jottali ga du sañ a téye aw làmmiñam bu waree wax faw rek mu wax lu aay mu ne leen lii aay na waaye jomb na ci moom muy téewu làmmiñam ci loo xam ne war na caa wax yu xasu def na jàppe min hu ci loolu jawaasu xarodin daganuk xarod li basharin ñel mbindéef fii xàqihim seen àq kal marodi ni ki tawat id ngir zaaka loole laa yaq daxu du jam fii xol wi manasilin ci kawe ay wàccukaay wala irsaaliman du caageenu ci yónni ka nga xam ne xadd mukki na dara jaaleef na ko xinda ilaahin xarsi fa buurub xaras ba ba li fi nekk ba li fi nekk daaka loolu bimaa nekk na ci la nga xam ne yasiidu dana dolli fii mikk na tihim ci seen daraja laa taximan bul defle idi ngir min fa waa idit ti saafihim bokk na ci njariñ yi seenug melowoo bixaa ci yooyu tashrihum seenug yoonal lanaa ñeelu fu dan jub fanta bi xan na nga yeewu min ha bokk na ci njariñ yooyee ak tasalli miise ga wattana buhu ak yewu ga kama qad taqaddama naka mu jiito woon fi wasatil kitaabi ci digg téere bi dañu ne woon ab yonante balaa gën a mat wàcce wàcce ba tolloo nit ñi ba nit ñi xam ne moom mii aw royukaay la ba tax nu waxan ne lépp lu niti kese yi def rek mbaa muy dal niti kese yi rek ñoom yonante yi daañu koy def te it dana leen dal ba mu des nag luy wàññi daraja mbaa luy tax ñu leen di daw ak yu demee noonu loolu nag mu ne moom yomb naa layal ndax nee nga woon ña jamononte woon ak ñoom dañ caa tegoon seeni bët alxuraan ba tey wax nu ko ay yooni yoon loolu nag nee na lépp rek niti kese yi dañu cay jàng bind boo xam ne waruñu ko fàtte ndax lay dal yonante yi ci xeeti tiis nga xam ne nee nañu ñoo gën a mettali ay nattu ci kaw suuf buñ jàllee wàll yu topp ci loolu bind la bu nitu kese war a jàng xame ca ne adduna ci boppam la yàlla def muy kërug nattu kërug tiis alaxira mooy kërug xéewal ak kërug fay jëf lu aju ci nañu daan lekke ak nañu daan naane ak nañu daan fàggoo pàgg bu lew ak takk soxnaak mboolem yi nga xam ne rek moom lu dagan la luñ daan def loola ci la nit kese yi jànge ñoom fu ñu war a aw ak lu ñu war a def te loola yonante yi daañu ci am tuyaaba ju rëy rëy ndax ku ndax ku gindi nit rek wan ko aw yoon rek yàlla fay la ca tuyaaba nga xam ne yonante bu ne ni aw nitam bare rek noona la tuyaabaam di bare aw baxtu leeral naa maa la nga xam ne kalimata shahaadati ñaari baati seere ga tadammanat làmboo nañ ko naduman mbir mu muy aw way bi xiwoo nekk na ci moom asahaadatu texe ma qillatil xoroofi ànd ak néewug arafiya xaawiyan way wu di aji làq li ma ñeel la nga xam ne xadd taxattama war na alal mukallafina ci mboole mukallaf yi aneetu jublu naa min xaqaaidil imaani ci pas-pasi gëm fi xaqi rabbina ci aqi sunu boroom al xazimi shaani ki aji màgg mbir wa xaqi ruslihi ak aqi yonanteem ya alayhim yàlla doole nekk ci ñoom maxan boole seen azka salaatin gën jaa selli teral ma salaamin ànd ak doole woolu tabiha gog topp na li ànd maarifatahoo ngir naka ak xamam moom yàlla tàddu xul dana tàbbi fi xawlika ci sa wax laa ilaha illa allaahu fi na nga matal wëlëre na nga matal àqi gëm kadaaga naka noonee fi muhammada ci muhammad al awwaahi ka di ab biniwaakoon fi muhammadin mooy cosaan waaye saye boo jàng fi muhammada al awwaahi ñu bañ koo soppi ci naxu ndax way wi tadxulu dana dugg maarifatu rusulillahi xam yonente yàlla ya salla yal na dolli tedd nga wa sallamati dolli woolu alayhi ci moom albaari aji bind ji wa alihi ak ñoñam wa saxbihi ak ay saxaabaam al axyaari ña di ay tànneef kon nag nee na ñaari baati seere yi benn bi mooy laa ilaha illallah ba ca des mooy muhammad rasulullah nee na ñaari baat ñi leeral naa lépp lu ñu ëmb ci wàllu pas-pas te mu kàllaf war koo xam te jàpp ko ndax ne bu dee ci wàllu yàlla moom baatub laa ilaha illallah ëmb na lépp lu ñu war a gëm ci moom war ko caa jàpp te bañ ca tolloo leeraloon na na mu ca duggee te nag boo xasee weesu yàlla moom muhammad rasulullah rek boo ko seeree dal ngay dugal leneen lu ñu war a gëm ci lislaam lu bokkut ak yàlla dala ci yonante yi ak malaaka yaag téere yaag bispenc ak dogal ak yépp yépp rek dugg na ci baatub muhammad rasulullah laxallaha ndaxle baat boobu lil ixtisaari ngir gàtt ga waxtimaalin ak ngir làmboo gam làmboo xalaa jamihima ci mboolem li nga xam ne dakar naa tudd nañ ko fil maqaali ci wax ja xëy na looloo tax jaxalaha def na ko asharhu yoon tarjamatan muy màndarga xalaamaa ca la nga xam ne fil fu aadi nekk na ca xol ba li kulli shaxsin ñeel jëpp jëmm fil ibaadi ca jaam ña walay sa yuqubalu te deful nangu minal insaani ci nit shay'un dara minal imaani ci gëm illa biha ndare ci baat boobule laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah léeg-léeg ñu tudde ko ñaari baat ndax li muy yaari seere seere ne yàlla rek ay buur seere it ne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàllaa ko yónni léeg-léeg nag ñu bool lépp rek tudde ko benn baat mu ne xëy na kon mënees naa wax ne baat bi daal gàtt gi mu gàtt ba noppi ëmb lépp lépp li war a fas ci lislaam moo tax lislaam def ko muy màndargam gëm nga xam ne ku seere baat bi ñu jàpp ne bokk nga ci waa lislaam la ca xol ba ñu bàyyi ko yàlla ku nanguwuta seere baat boobu ci sa làmmiñ nag te amoo ngànt luy tee nga mën koo seere ci saw làmmiñ du ñu nangu mukk ne bokk nga ci jullit ñi moom daal seere baat bi rek mooy tax ñu boole kenn ci waa lislaam fa kullu aaqilin jépp aji xellu isa dara ndem xam na haza lii fal yuk siran nay baril min zikriha ci ak tuddam mustahdiran mbir mu muy aji sàkkoo teewal ci xolam lima ñeel la nga xam ne ixtawat làq na alayhi ci moom min xaqaaidi xaqiqatil imaani ci pas-pas yi dëgg-dëgg yi gëm lil mujaahidi ñeel aji jihaad ja xataa takkoona ba dana nekk moom baat boobu muxra jatan di lu ñu génne ma maanin ànd ak ay maanaa mum te si jatan tey aji jaxasoo bi laxmihi ci yàppam wa damihi ak deretam fa innahu naka moom day kon yaraa dana gis minal xaajaa ibi ci ay kimtaan laxaa ñeel baat boobu minal asraari ci ay mbóot wal xaraa ibi ak way tumuranke maanaam yu yéeme yéeme maa loo xam ne laa yakoonu du nekk yedd xulu di tàbbi taxta xasrin ci ron ak takk ndegam nag baat bii noonu la demee ëmb lépp lépp lu ñu war a gëm ci lislaam kon nag ku yeewu daa war a bari la zikkara baat boobu di ko wax di ko wax lu baree bari te buy tudd baat bi muy teewluwaale ci xolam li baat bi tekki loolu day nee na ku ko taxoo di ko def ba mujj baat bile jaxasoog yàppam ak deretam dana gis ci ay kiimtaan dana gis ci ay mbóota ki secret ngir lam taxoo baat boobu lu bare bari loo xam ne mëneesu koo takk di jéem wax na mu toll kon nag bari la jikkar baat boobu tey teewlu maxnaam yi dana tax am paju aajo dana tax yàlla may la xam-xam yi secret ki mbóot yoo xam ne day bare bare ba kenn du ko mën a takk di xam na mu toll wa asalu danaa ñaan afdal tawfiqi ngën ji tawfiq rabbi sama borom jaxalanaa yàlla nanu def naatiqiina nuy way tudd fil mawti ca deega bi haadihi l kilimati ci bile baat aalimiina tey way xam la mu ëmb mu ne maa ngi ñaan sunu boroom mu boole nu may tawfiq may nu waxtu sunu roo di génn ci sunu yaram luy tudd baat bii te fekk noo ngi jàppaale ci sunu xol la baat bay tekki kon buñ tolloo ci waxtu faatu yàlla nu yàlla may nuy wax baat bii ci sunu làmmiñ te fekk booba noo ngi koy teewlu ci sunu xol xanaa fii nag intaha la jeexe nizaamuna sunu way wi yaqinan ci lu wóor xishrina birim muy ñaar fukk ma sittin ànd juróom benn minal mi iina ci ay téeméer fii nag nee na fi la téere bi yam bayit yi war naa tolloog juróom benn téeméer ak ñaar fukk alhamdu xeeti cant yépp lillahi aji yay la ñeel yàlla xalal ikmaali ca matal ga wa xayrihi ak ludul moom min jumlatil axwaali ci mboolem mbir ya nee na maa ngi dellu di santaat yàlla ci àggale gim àggale téere bi di ko sant itam ci mboolem li mu ma baaxee defal ma ko ci ngëneelam rek àggale téere bi lenn rek la ca waaye ci yooyu yépp laa koy sant nazuman mbir mu muy aw way jalaa wow feeñal na waxawaa mi das sanuusi way giimi sanuusi giim mooy làqu rek mel ne sawarawu giim te ci biir moom fayut maxat daqaa'iqi ànd ak sew-sew ya bilaa talbiisin ci lu dul lëntal mu kayisal bal yi di te muy aji ñawal aji gàtt xel musmi al asammi te aji déggal aji tëx mu nabbihal murtaabi te aji yee aji sikki sàkka min naw min wahami ci nelawi defle mbaa nelawi njuumte mu sahila sihaabi te aji yombal way jafe ya bi tawdihi ca leeral ga mu qarribal aqsa te aji jegeel max naa ma gën a sori bila talmihin ci lu dul ak junju mooy da koy wax bu leer waaye du ko junj rek bàyyi xadraa mu di ab xiik xiik mooy am njegemaar jongoma lam yaf taddaxa joo xam ne mësu koo bët mësta bët ak xiigam in sul fikari niti xalaat ya aw jinnuhaa wala seeni jinne xattu mukk wala fii ya de déet muy nekk ci man faxarun gennuk damo téere bi àgg na di way woo xam ne lépp lu xawoon a làqu ci taalifu sanosi wa moom way wi leeral na ko lu ca nekkan ci xeeti sew-sew way wi andi na ko mu leer naññ nga xam ne lu waay gàtt-gàtt xel booy jàng téere bi da ngay mel ne rek yaa fi sut am xel lu waay tëx-tëx naqaree déggal ba tey du tee rek dégg téere bi yomb ko lool lu jafe woon téere bi yombal na ko ci leeral goo xam ne du junj rekk bàyyi day leeral ba àgg ci day talu leeral max naa mu làqoo làqoo làqu du tee rek bu ko waxee bu bàyyi ko day leer nàññ mu misaale ko ab njege maar jongoma joo xam ne daal daa toll ci ñu joxe ko mu séy bu fekkoon ne njege maar la bu mel noonu day nga ne kenn mësta tëdd ak moom maanaam genn góor mësta tëdd ak moom li mu bëgg a wax nag mooy taalif la woo xam ne nit mbaa jinne kenn mësta xalaat ba génne lu ni rafete lu ni mel te mu ne loolu kat waxuma ko ngir damu dama ko wax rek ngir sant tas bii dana jàpp fu aada kulli di zaka in xolub képp ku di boroomuk ñaw wees dara te xeeb na al lu lu a wurus lu lu fil baxaayi ci ab taar taalif yi day boo ko dee misaale jongoma ju toll ci dem kër da ngay wax ne kon àgg na ci képp ku amu xàmmee boo ko gisee rek bëgg ko ba doo ko tayate wurusu lu lu li muy rafet rafet rafet way wee ko gën a rafet bu doon jongoma it nga ne jongoma ji moo gën a rafet wurusu lu loo zafaftuhaa togg naa ko nag togg mu sëy mooy zafa li maahirin ñeel aji ñaw xaalil maraami kuy aji kawe cakkuteef wal mahru te can ga an yadduxoo mooy mu ñaanal nu bi ahsanil xitaami ci gën jaa rafeti mucc ndegam dafa misaale téere bi jongoma am njegemaar bu toll ci dem kër ne kon nag maa ngi koy togg ab seet jëmale ko ci képp koo xam ne ku xàmmee taalif la tey boroom yitte ju kawe ku mel noonu rek laay jëmale taalif yi mel ne ku ko wët gan gu jongoma gan gu rafet rafet gu mat a fonk ndegam da koo jàppe nag ab seet kum ko yët mel ne da koo wët ab seet mu nekkat loolu kon can mënu caa ñàkk can gi nag nee na rek mooy ñaanal ma mujj gu rafet ñaanal ma dong daal laay sàkku ci képp ku gis téere bi képp kuy jàng téere bi arjo danaa yaakaar bihaa ci moom yawma xuloolil qabri ci bisub wàcc bàmmeel wa fil qiyaamati ak ci bis penc kabiral ajri aj rëyi ab yool maa ngi yaakaar yàlla fayema ci tuyaaba ji gën a rëy bis ba nga xam ne ca lañ gën a taamoo tuyaaba jaxalaha yàlla na ko def allahu yàlla liman ñeel ka nga xam ne taxallama xamlu na fii ci moom sullaman mu di ab kerkaraan maanaam mu di ab yéegukaay escalier li jannati naayimi jëm ci àjjana yi xéewal ga maa ngi ñaan képp ku jàng téere bi rek yàlla defal la ko muy ab yéegukaay boo xam ne ci nga yéege wuti àjjana tumma salaatu topp dolli teral wasalaamu ak dolli wóolu taabixan mbir mu muy aji topp xalal lësi yàlla na nekk ci ka nga xam ne yàkkoonu dana nekk shaafixan di aj ràmm fii naa ci nun muhammada te mooy muhammad almaxsuusi kadi kuñ jagleel bi tabb jiili ci ak màggal albaalixil xaayaati kay aji jot dayo ya fi tafdili ci gënal ga man mooy ka nga xam ne faataraw na albaaba dawil albaabi xeli waroom xel yi taaxdaaduma lim la nga xam ne xaasa laq na ko madal axqaabi dirub jamono ya dafa bëgg àggalee téere bi julli ci yonante bi mu daldi ne yal na yàlla dolli teraanga ak jàmm kii nga xam ne bu ëllëgee moo nuy tinu te bu nu tinoo rekk yàlla tinnu mu tudd muhammad muhammad mi nga xam ne dafa soob yàlla boroomam mu jagleel ko xeetu màggal goo xam ne mësu koo defal kenn te du ko defal kenn xeeti ngëneel itam li ñuy bari bari ngëneel lu ci ne yàlla àggale na ci yonante bi ci ay dayo yoo xam ne moom yàlla rekk a ko xam muy koo xam ne it waroom xel yi lu ñu mën a mën a wax ak a takk ak lim mënuñu wax mukk li ko yàlla defal lépp lépp li ko yàlla defal daal moom raw na xel ak xalaat kenn mënta xalaat ak xalaat ba xam na mu tollu wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay saxaabaam al anjaabi ña di ay tànneef as saadiqiina ña di way dëggal al ubbadi ña di way jaamu al ahbaabi ña di ay soppe xadadama limub la nga xam ne ad zaakiru aji tudd ja xadd zakarahu tudd na ko wa xafala ak limub la nga xam ne sàggan na ko al xaafilu aji sàggan ja an yadkurahu ci mu tudd ko yonante boobu nag day ñaan yàlla baril tere nga ak jàmm ci moom yonante boobu nag day ñaan yàlla baril tere nga ak jàmm ci moom boole ca nag ay mbokkam ak i saxaabaam yi nga xam ne dañoo nekkoon di ay tànneef di ñu dëggu ci seen diggante ak seen boroom doonoon ñu sopp yàlla yàlla sopp leen nekkan ñu gërëm yàlla yàlla gërëm leen yàlla na yàlla baril nag salaatu ak salaam mu ci yonante bi gaayam yooyu ba mu toll ne li mu ña farlu ci tudd yàlla lañu koy tudd na mu baree ak it li mu ñay sàggan ci tudd yàlla na ñuy sàggane ci tudd ko ñi farlu ci tudd yàlla lañ koy tudd moom day bari lool ña sàggan ci tudd yàlla it seen càggante ga day bari lool suñu boolee lim yooyu nag na muy baree yal na ni yàlla barile salaatu ak salaamu ci yonante bi ak gaayam yooyu tumma ridar rahmaani topp ngërëmal aji yërëme ji xan asxaabi rasulihi yal na nekk ci saxaabay yonanteem ba turan boole seen xalal ijaabi ci ak saxal waxan jamihi taabixiina ak wëlis mboolem way topp ya su ma man topp ka nga xam ne tabixahum topp na leen bi xayri ihsaanin ci ngën ji rafetal zamanan diiru jamono da cee teg ñaan yàlla mu defal ngërëm mboolem saxaaba yi te fekka na mu dugal leen léegi ci ñaanal ga teranga ak jàmm waaye mu dellu ñaan yàlla dolli leen ngërëm ñoom ñëpp dolli ngërëm it mboolem ñi nga xam ne ñoo toppoon ca ñoom ak sax ña ca toppaat tey rafetal ba bis penc ci ñoo ñëpp rek yàlla na yàlla boole leen ngërëm tumma xalal rusli topp yàlla nekk ci yonante ya wal am biyaay ak ñañu soloo ñañu soloo mooy ñi yàlla wax yu te digalu leen jottuli azka salaamayhi gën jaa seetli teralam ak jàmmam moom yàlla buñ ne assalaam maan rek dañ cee jublu assalaatu ak assalaam bilan tihaa in ci lu dul daytal maanaam ci lu amul fu muy yem maadaama li fekk sax na aalimun aji xam yafooxu di kawe jaahilun aji réer waxaasa ak li fekk làq na naadimun aji way tawaaban ab yool kaamilan bu di aji mat dafa far daaneele ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoom la yàlla masa wax yu moo xam digal na leen ñu jottali moo xam digalu leen ñu jottali ñoom ñëpp rek mu ñaanal leen yàlla dooli leen gën jaa selli teraangaam ak gën jaa selli jàmmam mu ne ñoom ñëpp yàlla na yàlla saxalal leen teraanga jooju ak jàmm jooju li fekk nga xam ne nga xam mu ngay féete kaw nga xamut ak li fekk nga xam ne kay woy di taalif te ngir yàlla rek tax ma ngay am tuyaaba ju matamat ju rëy rëy ci yàlla li fekk looloo ngi am rek yàlla na yàlla saxalal leen ñoom ñëpp ngën ji teraanga ak ngën ji jàmm saxalal saxaaba yaag ña toppante ñoom ak ña ca toppaat tey rafetal ba bis penc ngën ji ngërëm foofu la téere bi yam dañu ko doon yeesalaat yeesal bi nag àgg na ci mat juróom ñaari kaseti soixante kuy jàng nag léeg-léeg mu gis ni xeeti yax yi muy xeeti mural yi dañuy wuute dana am ay yenn baat yoo xam ne na ko móol bee di def du bokk ak na ko beneen móol def waaye nag du soppi dara ci maxnaa yi te baat yi jëfewuta firi ku bëgg yeesal bi nag te fekk mu yoroon yu màggat ya mën na koo indi ñu defaral ko ko mottal ko it li ci manki ndax yu njëkk ya mëttoon juróom-ñaar ku ko déglu it lu mu ca jariñu lu mu néew néew mu ñaanal ki ko doon def noonu ci wolof ak mboolem bokki taalibe yépp yépp ak bokki jullit yi ngën ji njëgal ak jàmm ak yërmande fii ci àdduna ak ci alaxira te sëriñ bi yàlla def muy buntub yërmandeem nu ëppale ca tawfiix ji yàlla jaarale ci moom fii ak fële faaw bi xadiimil mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin